parfaitement c'est sa analyse. waaw loolu lu ñuy lu ñuy mhm. wax et puis euh, c'est vrai que nous sommes dans le secteur informel mais nous avons aussi beaucoup de respect pour euh, ñi nga ils sont dans l'administration. parce que li nga xam ne euh, dañ ko définir comme ay chiffres yoo xam selon leur dire dañ ko falsifié ça veut dire que doit dafa une répercussion sur toute l'administration voilà même ñi nga ce sont des euh, les agents administratifs même ñi nga xam euh, comment on le dit encore ci secteur ou finance en tout cas toute l'administration voilà pas nañ leen baaraamu mm-hmm. bon ce qu'on n'arrive pas à comprendre c'est que jusqu'au mois de juin qui mm-hmm. nga xam mon baromètre bi FMI nous avait dit que

lan mo réellement mhm. peut-être que le président Macky Sall bu il a déjà fait une sortie mhm. peut-être que bu avec des chiffres et ak ay experts dinañ ñu wax exactement ce qu'il en est. mais là c'est en tant qu'intellectuel, est-ce que japp nga ni que état mën na def ben mensonge jëmele ko ci ay partenaires ak ay investisseurs lu melni banque mondiale lu melni FMI jëmele ko ñi ne la fay waro dépasser li ci bor yow nga jël bor bu ëpp lolu jox leen ben chiffre alors que yow xam nga ni banque tay so fa naree jël bor benen banque bi ngay jëlé ji bor dañuy wër banque yépp xol ndax yor nga fa un franc wala yoroo fu un franc ndax fay nga ko wala fayako est-ce que discours bi ça tient debout comme yene a ngi jëm ci élection législative est-ce que c'est pas un discours encore de manipulation pour djema xagn yi nga xamanteni ni moy ñi fi yoron pouvoir bi pour ñu am majorité mm-hmm. gën poussa Sénégalais ñu ñu ba ci même erreur de défendre le 24 mars 2024. comme yene da ngeen bok tay aussi ci ñu jëm dagan batu askan bi. est-ce que jotul ku ci nek si yéen leeral ko xamal ni que tay la vérité se trouve vers yene wala vers ñi wala nekul ci ñële. exactement toge en tout cas les politiciens se rejettent des chiffres. Ouais. mais li ma ci mën a wax mooy. ñun par exemple ñun le bas peuple comme je dis. gis nga bu fekkee ne da ngay dem di lebi ci microfinance parce que ñun ñu bëri ci microfinance yi la ñuy dem pour ne du ma citer seen tour fii. pour ne pas faire de publicité. Ouais. mais bu fekkee ne da nga dem par exemple ci. Euh, agence boo xam ne ñoom dañuy leble xaalis mm-hmm. ci banqaas yi nga xamné ñun ñuy liggéey liggéey yu ndaw yi dañuy dem ci agence yoy pour ñu lebal ñu mm-hmm. mais bo démé fofu ce qui est sûr moy bo amulé dara mm-hmm. kenn du la lebal loolu c'est sûr benn euh, Bagn nañ ko sax ba ñi nga xamné dañuy label, dañuy ñëw xol yow sa commerce bi nga am bu mm-hmm. fekkee né tu as une petite table mm-hmm. nga tek fa par exemple sa ñaari piis sa ñetti gramme bu bëgg ko jaay mm-hmm. yow bagn nga ko ba da ngay trouver ben superfuge boo xam ne di nga seet naka ngay def pour jéem améliorer touti sa table bobu pour que nit ñi bu ñu ñëwé di def ben prospection ci li ngay liggéey daal di mën a réglal loo xam ne yow mën nga ci liggéey donc ku amul kenn du la lebal ça c'est de un beneen bi mooy dafa am benn étude bo xamne dañ koy def benn étude boo xam dañ koy def maanaam yow bo ñëwé par exemple ne dama bëgg ngeen lebal ma 100000 francs ci kaw lebal 100000 francs boobu dinañu def ben étude bo xamne dinañu set yenen microfinance ndax yow amuloo fa bor ba pare daal di daw ci ñëw ci ñom ben dinañu def benen étude bo xamne dinañ la ne par exemple yow 100000 francs bi buñ la ko lebalé ñaata nga ciy jënd marchandise. Mhm. boo ko jëndee ñaata nga ciy mën a am par jour. Mhm. boo ko amee ñaata par jour yow ñaata yi nga am. Mhm. ñaata employé nga am ñaata ngay xalaat ne loolu mën na générer ci ay bénéfice ba yow nga mën ñu fay. donc étude la du mënul doon loo xam ne c'est c'est c'est du don lo xamné ne <laughs> dinañ ko mën a falsifier li mhm. du don lo xamné ne dañ koy jël ni comme ça par hasard mhm. donc c'est des chiffres yo xamné c'est extrêmement bien étudié donc ma xalat né ndégam les microfinances là ñom ñoo mun a def saytu bu mel noonu mhm. waxatuma ak ñi nga xamné ay banque mondiale ak ay FMI e ak ay institutions yo xamné vraiment ils travaillent dans le monde nek dans le monde du finance xam ko di doxal lolu vraiment ça ça m'étonnerait que ça puisse se passer comme ça. D'accord.